RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal. RFM Matin, 7 h 40 euh, Sunugan, Abbé Alphonse Bilamdour. Salam alaikum. Abbé. Euh, xam naa dañuy euh, jox ko ak mom ci kanam touti ñu euh, abbé Alphonse Biramdour mom moy curé paroisse Saint Charles Borromée bu Gorée Nek vicaire épiscopal chargé du service euh, buñ né euh, vicaire épiscopal chargé du service euh, euh mom ci l'imou mu féetewoo am mi di enseignement bi Caritas ci la bokk walu santé ak euh, Walu promotion féminine ak tam waxtan ci euh diine yi abé ma nga ca ca fa la ñuy jëm ak mom déggam Alphonse abé Alphonse euh, il ne nous euh, entend pas. Ramna. Euh, Abel Alphonse, salam alaikum. Allô, allô. Allô. Ah, euh, téléphone baa Donc, de Ramna naa daf ñu dégg euh, allo Abbé allo Ramna <laughs> naa ñu jëm ko ci téléphone portable comme ça nous gën ñoo dégg Albé Alphonse Biram Euh, bu gore waroon na teew waaye xam ngeen ni euh, Gorée teel fa am salup euh, ngir ñëw ndakaaru dafa xaw jafe tuuti. suba teel yaay na ngeen dégloo RFM matin lolou wóor na ah soo leen yeewoo suba teel déglu RFM matin ah soo leen yeewoo suba teel waaw na RFM matin

waaw dafa baax ñu njëkk euh, xamle ne conseil national du laïka ah, mooy kuréel gi nga xamante ni moom moo euh, boole dajale bépp xeetu mbootaay te ñu koy oowee mouvement d'action catholique lépp li nga xamante ni moom mooy euh, muy SCOTI muy GIEC <clears throat> muy CVAV wala yeneen xeetu mbootaay ci biir jàngu bi conseil national du laïka boobu moom moo leen ŋànk am na conseil diocésain maanaam yi nga xamante ne ñoo nekk ci diocèse yi léegi nag conseil national bi daal di ëmb ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fété ci bépp diocèse ngir dellu si ci kàddu gi nag ñoom dañoo siwal benn bataaxal démb daal di xaatim ni njàngale bi nga xamante ne moom la jàngu bi di wone moo di jàngale bi gën a ñaax tek ko buñu bokk ngir ñun ñëpp ñu mën ko dund ñu mën ko dund te mën ko siiwal i tamit loolu nag ci la sukkandiku ngir mën a fii firndel li nga xamante ni moom moo ko ñor solos bii nga xamante ni mu ngi fàttali ni wax dëgg yàlla am na ay kàddu yu ñagas yoo xamante ni euh, rafetluñu ko benn yoon te mu duppee ci euh, kenn ci ñu féete kaw ci wàllu réew mi jiite li nga xamante mooy gouvernement bi te kàddu yooyu nga xamante ni moom la ñuy ekkati jaaxal nañu bett nañu itamit ba ñu koy ñaawlu looloo waral nag ñuy fàttali lu ama am solo mu di ci biir njàngalekaay yooyu nga xamante jàngu catholique moo ko am te di koy siwal te sax daanaka am na yeneen i jàngalekaay yoo xamante ni ay nit ñoo leen moom bokkul ak l'école publique waaye ci li nga xamante ni moo ñu soxal ci jàngalekaay yi nga xamante ni ñun suñu wàll moom lañu ñu euh, jiite te di koy de depuis mille huit cent dix-huit fii ci Sénégal dañoo bëgg a xamle ne képp ku ñu dënk loolu moom mooy li nga xamante ni moom la jàngu bi bëgg. léegi bala ma bàyyi euh, Georges euh, ak laajam euh, ci bataaxal bi yéen a ngi nii li leen gën a soxal ni nga ko waxee léegi du muuraay bi waaye xale yi muuru itam buñ duggee ci classe bi bu dee jigéen ñi la comme ñooyu muuru du ñu bëgg a dend ak góor ñi bu ñu génnee récréation dañuy beru bañ a bañ a toog ak seen yeneen morom yi yooyu dangeen jàpp ni dëppoowul ak li ngeen bëgg ci seen école yi ni muy doxee.

ci biir njàngale daara yi jàngu bi dafa am li ñuy oowee règlement intérieur règlement intérieur nag moom moo ëmb lépp li nga xamante mooy doxalin bi xam nga ne constitution Sénégal am na waaye terewul kuréel yi am seen réglement intérieur li ci assemblée nationale ak yeneen yi bërëb ba tax na bokk li ñuy tere moom mooy beru bi bañ a toog ak ki nga xamante ni bokk leen maakaama maanaam beneen genre la góor la bu fekkente ne jigéen la wala jigéen la bu fekkente ne góor la lii nga xamante ne dañooy tàggat yaram ci xale yi muy gymnastique mayewuñu nga ñëw ne lii doo ko sol ndaxte sa diine mayu la ko wala bokk sa gis gisu diine mayu la ko loolu moom la jàngu bi di ŋàññi waaye du muuraay mukk boo leen seetloo yàggul dara barke démb booru la 16 juillet

te ñun doy na borom xel moom la ñuy wax wax dëgg yàlla ku dëgg kàddu yooyu te fàttaliku démb xam nga moo na buñ la turul itamit yow la ñuy waxal looloo waral nag nit ñi jóg ku nekk jóg ci wàllam ba l'abbé André mii nga xamante ni xëy na moo gën a fësal coow li parce que xëy na bu ñu yemoon ci li premier ministre wax kon euh, dañoo koy noppee daal di jàll ci leneen ba tax ba l'abbé André dal daal di yëkkati kàddu ñu bëri gis na ay kàddu yu ñagas la mooy li ñuy waxee ci nasaraan rek c'est la réponse du berger à la bergère ndaxte na mu waxee al waral ba ay kàddu di jib wala boog xel di jóg ba ñuy wax wax gi ni mel moo tax bu dee njiit nga ak koomul munti doon ngay labe ga ngay euh, waay politique ba waaye diine ba ak koy mënti doon na nga fexe booy wax ci kàddu ci kanamu mboolo mi nga xam li nga koy waxe mu ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak xel te bañ a doon ak xol lii ñu bari xol la ñuy waxee te dafa doy waar bu ñu buggee suñu réew mi jëm kanam faw ñu ormalante suñu biir ku nekk may moromam cër man dafa am loo xamante ni moom laa óole mu di sama téere mu di loo bëggul ñu def la bu ko def sa morom loolu bu ñu ko doon dund kon dama wóor def ma wóor ni kon Sénégal bii ñuy dund ñun ñëpp te di ko yéene ci Sénégal yi jàmm day doon dëkkub naataange day doon dëkkub jàmm day doon

Euh, par parlo politique la rek ndax euh, Abbé André Latyr Ndiaye wéru novembre bi défé vidéo di euh kilifa yi Pastef yu mel Ousmane Sonko yi Macky Sall doon fitna la ko tejj ñom ñi koy xas ñoko ñoo ko doon tàccu. Mhm. donc euh, politique bi mo yàq mo yàq dëkk bi rek xana xeyna wa wa wa euh muy lu ñi ñaawlu ndaxte politique ci boppam ku xam lu mu wund modi fexé ba. dëkk bi gën a ñong dëkk bi gën a baax organisation dëkk bi gën a jaar yoon loolu mooy politique te looloo waral ba ñu bëri di soobu ci politique politique bi ndax yéen gi ñu am ci réew mi comme naka doon waxee woykat ba ku ne naan man ku ne naan man jox leen ma réew mi ndax ma defar ko loolu mooy yéene bi kon politique bu demee nag ba pëcc xoo daal di toog réeroo daal di ñëw wala ñuy jóg dal suñu kaw ñenn ñi seen kaw moroom su boobaa nañu xoolaat ni ñuy politiquer kàddu yi nga xamante ni moom la labe bi wax mais mosoon na fi wax ay kàddu yoo xamante ni comme ni nga ko waxee Babacar nit ñi dañ ko doon tàccul fii ci réseaux sociaux yi tey kàddu yi mu wax tax ba ku nekk yëkkati kàddu bu gën a ñaaw teg ko ci ndodam labe André du nu bu bu leet muy de muy bind lu mel nii ni ko ñor kay mooy Sénégal te loolu daf ma leer mën naa ci seede ba Ablaye wat génnee wax ne ci palais de la république benee ay mbóote ki ñoom dana fa nekk moom André génn na xaatim benn bataaxal jagleel ko lu mu ko defee nii. ak en 2009, Ablaye wat boobu président la. Mhm. kon nag euh, nañu moytandiku daal di yaakaar ne rek wala man dama bokk ci boor bi wala ci boor bee nu ma neex laay waxee wala nu ma neex laay taxawee nit.

boo jàngee bataaxal ga mu bind la mu xaatim dafa ne ay loxo yoo xamante ni wala ay géejo yoo xamante ni euh, euh, melul ni mu war a mel warul say turé waaye ba léegi tuddul ba léegi tuddul ne diw la ñuy wax wala diw la ñuy wax. Hmm. waaye est-ce que junj doyul xel yaa ne woon sànq junj doy na borom xel de. waaw waaw junj moom doy na borom xel waaye nag. waaye nag ba fu ñu toll nii tey la mu wax ci bataaxal googu ba léegi tuddul ne diw laay wax la wala diw laay waxal. li muy wax nii mën na ma laal mën na laal diw mën na laal diw mën na laal ku ne kon bu fekkente ne nangul nañu ku nekk mu am li ñuy oowee liberté d'opinion maanaam nga am sañ-sañu wax li nga xalaat buñ ko nangulee nit am na yoo xamante ni en tout cas ci sama waaye politique su ma doon ci taxawaayu ñooñee dama koy tege ne daal di concentré wu maanaam daal di gën a farlu ci li ma ñor ak ci li ñor réew mi mooy maanaam jëmal réew mi kanam

jàngu bi taxawulul monseigneur Benjamin bi nga xamante ne moo ko yilif ci diocèse Ndakaaru dafa jóg yaakaar ne dafa war a euh, séddale xalaatam daal di ko xaatim daal di ko wasaare donc du kàddu jàngu bi waaye conseil national du layka bi ñu njëkk tudd fii nii bu jógee xaatim waaw kooku de am na màkkaama boo xamante ne mën nañu ne kii nii mën na taxawal jàngu bi monseigneur André Guèye ca Koudiadiène démb bi mu jógee wax mun nañu ne ah kii de kilifa gi bu waxee jàngu bi lay waxal rawatina ci wàll gi nga xamante ni mooy joseesam. Cees mhm. ba Cees ba Ndiarème moo ko jiite foofa. mën nañu ne. Mhm. kii tamit li muy wax nii daf koy wax ci kàddu jàngu bi ndaxte moom moo am maakaamam. waaye labe André bu tëggee di wax man mii ci sama wàllu l'abbé man dong tudd ñu vicaire épiscopal ak yeneen ni mel nga xam ne yeneen sas la àndaaleel su ma jógee di wax sama bopp lay waxal waxaluma jàn bi. waaye ñun ñëpp dañoo jàpp ne lii nii lu jublul réew mi ci kanam la looloo war a ñuy jóg toog di wax. Mhm. ku ñu miin la ndax euh, ba ñuy tuut tànk moo doon animé le jour du Seigneur ci télévision publique RTS euh, gore gaw nga nekk sax foog naa moo la fa jiitu woon naam nekkatu fa. Mhm. Euh, léegi abbé Alphonse gannaaw ay jàmm fan lañ war a jaar fiñ toll nii ba yëf yi dal. waa dama jàpp ne euh, lii ñu soxal ñun ñëpp moo ñu toog waxtaan parce que gis nga euh, wax yi ni mel ci ëtt la nga xamante ne moom la jur moom la mën a jur euh, mën na doon lu ñagas mën na doon lu saafaanoo waaye lu ñu kumpawoo toog waxtaane ko dama yaakaar ne mën na jur lu baax mën nañu toog suñu diggante ñu ne am nañu ay kilifa am nañu ay njiit jàngu catholique dafa mos a organisé wu doxalinu jàngu catholique dafa mos leer ba tax na am na ay directeur de l' enseignement am na vicaire épiscopal chargé du service ak yeneen i ñoom seen yoo xamante ne mun nañu toog waxtaan. te dama jàpp ne bu ñu doxalee noonu kon mbir mi dana gën a saafarawu ci njëkk ak teraanga. dina saafarawu ci kumpa ndaxte coow bi bu bëree lu ñu ci amee lenn lu ñu ci neex. Euh, lu lu saafaanu. mais abe euh, dañu toog. Euh, abe ci wàllum voile bi ba léegi pourquoi la plupart temps quand on parle de voir ce sont des écoles de l'enseignement privé catholique la ñuy ciblé ci wàll Sainte-Jeanne d'Arc ak li fi xewoon également à Saint-Louis. waaw Digué Marie amoon na cas bi ni mel. Hmm. Jeanne d'Arc amoon na bi ni mel. yaa seen ci canum jéemoon nañu ko fa. Mhm. Sacré Cœur jéemoon nañu ko fa. dama jàpp ne aussi léeg-léeg ngeen baal ma ci waxin bi am na ay wajur yoo xamante ni ay provocateur lañu loolu day am xam nañu xil ne lii nii dañ ko fay tere waaye ñoom dañooy dëgëral ngir yëkkati coow li loolu bëri na fi kon encore une fois de plus. Mhm. ma dellu si waat di koy bamtu. wàllu muuraayu cër gii njor gi nga xamante ni moom la xale yi di sol loolu dérangé wul église catholique ça nous a jamais dérangé te muuraay wul ci l'islam dañ ko doon def ca corinthien ya ca jamonom tey boy gisee ne di dem jëli communion amna na sañ-sañu mouru su ko nexé budé dee la Paul Musalim moom moo wax ci ci ci ba mu corinthien mm. kon mbirum njor mi lay wax dëgg yalla pour ñun lu tekkiwul euh, solo la amut solo pour ñun mais mais surtout que les les religieuses moy sœurs yi dañuy mouru non les religieux justement encore les religieuses plutôt amnañu sañ-sañu ñoo duñu hmm. voile mais même muuraayu religieuse yooyu wax di xam ngeen du hmm <laughs> doon encore une fois de plus njorgi le dérangé wul benn yoon jàngale woo catholique. léegi abbé abbé Alphonse foofu lañ bëgg a ci réew mi ay at suñu bëgg a daanelee en 30 secondes mooy euh, ubbiteg école gi nu mu nar démé demee Sonko né du fi amé ngeen ni la ngeen di doxal mom ngeen di doxal. jàmm rek lay doon euh niñu mëna sukkandiko ci règlement intérieur weeru ci benn déclaration politique générale moom du ma ko def léegi noonu la école catholique amee règlement intérieur ne lii la ñuy doxal suma école. merci merci beaucoup abbé Alphonse Birame Ndour euh, jiite euh, paroisse bu Gorée euh, jërëjëf nekk vicaire épiscopal itam jërëjëf Georges jërëjëf Fati